أراني علي ginnaaw bi Momar Anta Sali mii way juróom wàcce liggéey ca Mbàkke Kajoor ci la Sëriñ Tuubaa doog a woote wooteem bu boobu teg ko ci jaamu yàlla ak liggéey waaye bala ñoo mën a xam dëgg dëgg solo saxawaayu sëriñ bi ak njariñul gisiinam ci lislaam ak ci yoonu tarbiya faaw ñu jéem a gëstu bu baax li tënk lu bari ci jëfam lu mel ne yeesal walla tajdid xam-xam jëfe xam-xam xidma tarbiya ak yu ne demee man nga ni déclaration bi mu njëkk a def déclaré déclaration rek man nga ni cee daju sëñ Mor Anta Sali la ko def ndax bi nga xamee ni denc dañ ko ba noppi mag ñi nga xam ne ñoo doon moroom mi sëñ Mor Anta Sali daa tase moom ci daara di ak maasam toppatoo ko def la de or seen diggante ak moom lépp la ca des mooy samp sëriñ bi ndax booba xëy na du taawu sëñ Mor Anta Sali sax waaye moo gënoon taxoon ak moom ndax boobu sëñ Maam Maam Mor Jaara moom mi ngi bàkkee mi ngi woon ci daara yi itam di topp waaye sëñ Mor sëñ sëñ bi moom moo gënoon taxawoon ak sëñ Mor Anta Sali sant Sali ba tax na kon moom dañu préparé woon pour mu toog fi mu nekkoon ah bi ñu waxee seen diggante ak moom ba jox ko ay conseil ak samp ko des ci nag ñu wax ne ko nag léegi dañoo bëggoon nu ànd dem ci Lat Joor ndax xam nga digganteem ak sa waajur suñ demee nga jaal ko ko noonu it nu dénk la ko lam jënkoon sa baay lépp mu tegaat ko ci sa loxo foofa ca mbooloo ma la leen wax lam leen tontu ne leen sant nañ leen bu baax ci taxawaay yi ak ci njaal mi ngeen nu jaal sëriñ Mor Anta Sali sant nañ leen ci waaye nag la ca des nag moom mooy seeti buur bi moom loolu moom sama xel xalaatu ko rus naa daal malaaka yi di ma séen ma yëkkati sama tànk jëm ci kër buur foofa la mbooloo ma ne tërit ñëpp tasaaroo ñi xam yàlla xam ni kii ku fabu la ngir am fu mu jëm waaye ñi nga xam ne xamuñu lu dul àdduna nag moom dañ ni kii moom yaram wi daay neexut ndax àdduna ju ju ju mel nii ñu préparé ko ba ba ba mu jekk dara des yi ñu fab ko teg ci loxo nga wëlbati ko woon ko gannaaw ko kooku niite du ko def loolu moo waral nag xaaloo sa fikun joojee ak la ca toppaat feeñalee taxawal yoonu murit yàgg na tuuti yàgg na day mel ne yoonu murit manes na ne dafa du ma ne dafa taxaw ñaari yoon waaye dafa taxaw ñaari façon taxaw yoon yu wute manes na ne mu dafa judd ay yoon façon juddin yu wute juddoo na Mbàkke Kajoor ginnaaw bi beneen façon juddin juddoo na ko gànnaar ca Sarsara waaye nag jëmmi yoon murit dëgg-dëgg moom ma nga juddoo Mbàkke Kajoor ci daara ji xam ngeen ne bi nga xamante ni sëriñ bi jekki-jekki na wax ba itam yu siiw yooyu taalif na ko min ajaa bi nabil Mustafa ci la ba naan baaxin ada ada ardahu bil awliya ila al qiyamati wa kullun waliya sunnatahu wa saanaha an bidaai tabshirahu bi fastaim mooy bi xamante ni woote na ne képp koo xam ne ñëw nga fi ngir sakku xam-xam rek mën naa dellu képp koo xamante ni ñëw nga fi nag ngir laneen himma masalan la deen taxulaa jóg man araada ma araad naa nag kon nee na na toog ànd ak ñun mooy ba nga xamante ne daal daara ji moom façon beneen méthode jàngaleen léegi moom laa wëlbati de euh, moom laay taxawal day man la boobu mënees na ne ci la yoonu murid soso woon ci Mbàkke Kajoor loolu xam ngeen ne yàgg na tuuti ndax Mbàkke Kajoor yàgg na nit ñi moom waxtu woo xamee ni jaar nga fa dul fa ñu jaar wala bëgg nga lu dul la bëgg fokk wutal la aw tur wutal la aw dàkkental ginnaaw nag booba sëñ bi moom la nga xam ne moom la doom yi soxna yépp bëggoon te loolu mooy di am manzila bu rëy ci ceddo yi maanaam buur teg la loxo doy loola di diisoog yow loola bañ ko ko proposé nanguwu ko laal nangu koo jegeñ ñaareel ba itam doomi soxna lëm am la gën a rëy moo yor daara ju rëy yor mbooloo li leen jàngal ah ñu di la defal àllarba loolu lañ gën a loolu mooy li nga xam ne nii moom la doomi soxna doon xalaat ni doomu soxna mënta am wàccukaay ci Sénégal bu gën a rëy loolu yooyu nag sëriñ bi moom mel na yooyu yëpp xeeb na ko loolu itam nag am na am na lu mu jur ndax sëriñ bi moom lim fu mu jaar daanaka biir na li ci ëpp boo déggee xasidaam boobu naa xawlu xaalu safihun ak xaalul kan tontu ñooñu moo ko taxoon a jóg ñii dañ ni ñii dañ na ko wax ni ko dañ ko proposé ne ko jéem a la maslaak boor yi ñu jox la ci li nga yor ñu jox la ci li ñu yor boo leen juble boo leen ànd ak ñoom li nga bëgg léegi mën nga ko am say problème day jeex mu won leen ne moom loola moom xeeb na ko am na leneen lu mu bëgg ci yàlla ndax comme na ko waxee anna ufawidu ahwaali liman ajazu an an xaali anfusihim ajzal masakini man naay fabe sama mbir di ko jébbal ñoo xam ne nii seen mbirum mbopp ñoo ci gën a lot miskin ma gën a lot kon nag man nan laay fab sama mbir leen ko bi loolu amee nag ñu ni kon nag kii daa dof ndax daal àdduna maanaam li nit ñëpp bëgg di ko daw di ko wuti ñu fob ko yët la nga gert nga woon ko gannaaw loolu moom dug nite boo xoolee Masaalikul yi nga xam ne d'abord foofu critique sociale dëgg la parce que euh, amul woon benn classe boo xam ne classe sociale catégorie sociale boo xam ne sëriñ bi critiqué wu ko euh, critiqué na euh, borom xam-xam yi nekkan ci jamonoom critiqué na euh, avec ak ak catégorie yi ñu bokkoon yëpp parce que y avait amal na ay ay li ñu tuddee ay kàng foore amal na imam amal na sëriñ tariyaax amal na sërif amal na sufiyanke donc yooyu yëpp ay catégorie la woon ci cas race bi mais ñoom ñooñu ñëpp euh, du ma dama critiqué leen ci sens bi ma jublu ci critiqué maanaam ndax sëriñ moom daawul ko a bari woon teggin la te itam ñëpp la ñëpp respecté woon waaye euh, terme bi moo xaw a jafe ci wolof donc ñoo ñëpp daal euh, gàggantiwaat na leen <laughs> ci bu bu la rek mën la ñoo jàpp ci baat boobu euh, loolu it li fa mu amee li ko gën a am solo mooy ci critique boobu d'abord lañ ciy dégg boo ne kon amoon na conscience bu mat sëkk ci réalité deuxièmement ci réalité boobu it la départ nag loolu defi lecture du passé islamique xam ne loolu day am lu am lu day am solo lool ci wàllu méthodologie ñun itam ñu war ci ñun ñii tee ñu war cee jariñu war a xam surtout nekk ci monde gola gola kii mondialisation euh, nga xam ne culture soc de civilisation yi commencé na donc war na ñoo xam naka la ñu aborder culture la culture d'autrui sëriñ bi foofu war nañu méthode déjà parce que ni mu abordé la culture arabo bi jóge ci réew fekk sinu fii ni mu ko abordé ubbil nañu bunt ci naka la ñu war a comporté wu ak n'importe quelle civilisation étrangère. bi nga xamee ni nii nag sëñ Mor Anta Sali génn na mu toppatoo ko toppatoo gannaawam ba jigéen ña doon jàpp doon liggéey seenu mat sëñ ma sàmm ñëw gannaawam mu wutal ko aw tur boobee nag la daal di commencé dem ci. réew mi siyaare si boroom xam-xam yu bari ak nit yàlla yi nga xam ne ñu ngi woon fi ji dund ak ñi faatu yàggul dara mu jóge fa dikk sanc lil Mustafa nawaytuma yujaddidu sunnatahul qarra wa inni ahmadu lil Mustafa baatu yeesal boobu daa am solo ci biir yoonu murit sëñ bi biñ ne ab yeesalkat la diinun siwaa islaamihi laa yoxmatu indal ilaahi wa bihi nujaddidu moo ko waxal boppam moom dafa ne daa dikk pour yeesal daa dikk pour yeesal yeesal nag ku koy def da euh, mayaadin wala wala wala wala domaine yi nga koy defee day bari sëñ bi bi mu dikkee di yeesal ni lislaam làmboo lépp yeesal bi muy yeesal daa làmboo lépp yeesal na ci wàllu xam yeesal na ci wàllu euh, économie yeesal na ci wàllu social yeesal ci wàllu diine yeesal ci wàllu yépp nga xam ne lépp loolu la xam ne lislaam laal na ko yeesal bi dafa laal dafa dafa làmboo loolu yeesal ci islaam mooy mooy mooy mooy tasdiid yeesal euh, du nga ñëw dàq mbir déedéet yeesal mooy nga ñëw fekk euh, mbir mu am ak dégg-dégg gu yàgg guñ ko déggee woon déggin woowa nag Euh, déggin woo gis ak jamono ñoo ñooy ànd kon bu jamono changé déggin daa war a changé déggin wa nag mooy màggat mais du du principe ba en tant que tel mooy màggat déedéet principe ba mooy déggin wa mooy entendement mooy màggat kon kuy yeesal danga nga na ñu dégge tel ou telle question maanaam nañu dégg islam exemple bu dee islam la ñuy yeesal nañu ko déggee déggin wa ko Malik dégg woon bu léegi wala bëlatul kon dëggit woowul la ñuy changé sëriñ bi mu ñëwee euh, concept yi ñu aman ci conception bi ñu aman ci aqida ak saria ak ci tasawuf moom la fekk mu màggat mu yeesa déggin ñi andi bi ñoom déggin mu bees yuinu ni ala sawa bi samadun bi jaayi xayril sëriñ bi lim sa lim lim njëkk a soppi mooy rapport maanaam di dox diggante dongo ak ki muy jàngal ndax bu jëkkoon dongo bi day indi ab téeréem nga wax ko li ci téere bi su ko xasee xam taqali ko ngeen su ko neexee wuti ko àdduna su ko neexee itam jaamu ji yàlla ginnaaw nag moom day nit li ñuy wax ko engagé la dafa am fu mu jëm am ñu lu mu bëgg mu ne nag koo xam ne nii nag li ma bëgg nga bëgg na ñëw nu ànd waaye koo xam ne da ngaa bëgg njox la bagage yoo xam ne da koy wuti ji àdduna ba boo nga seeti ko feneen fi ci wuti àdduna loolu mooy sëriñ bi dafa changé aw jàngalin waaye sëriñ bi bàyyiwul jàngale léegi nag koo xam ni da nga bëgg loo jaamoo yàlla xam-xam boo jaamoo ci yàlla nga xam na ngay boole xam ak jëfe ñu tarbiyee la teg xamal la tarbiyee la ba li nga jàng mën ko jëfe na ñëw nu ànd loolu mooy tarbiyee bi ci la ko ñu bare bari topp ci magi murid yi nga xam ne ñoo jiitu woon ñi nga xam ne ñoo njëkk ànd moom jaayante ak moom euh, bokk na ci Cheikh Adama bi nga xamante ni jaayante naa moom sëñ bi dénkoon na ko dénkaane bu am solo loolu rek waras na ci occasion ne ci ne sëñ bi kon képp koo xamante ne da ngaa a jaayante moom comme ni ñu jaayante daaw la bàyyi noonu rek dem waaye daana na daana la wax fexe nag ba xam li tax nga jaayante ak moom leen boole ndax nasiha bu am solo la ca tàmbali ba ma ngi cay bind ne bi wasiyatun aw sabi maa ngi ci dénk sama donc taalibi bii di ah, Cheikh Adama Gueye waaye yu am solo mi ngi tàmbalee ci xamdan li man qad awjaba suala an illazina karihu dalala xasida ko gudd dem na ba ci biir naan ko haza wa ya aadamu ya muridu in kunta nuura rabbina turidu fa dum ala ibadati arrahmani wala takun min abidin niswani ni nga ko tàmbalee rek ci bayit woo xam ne baax na lool ñu jàngataat ko mooy mu ngi sant yàlla waaye am na nu melal yàlla boobu mooy yàlla mi nga xam ne moo wax fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun yàlla mi nga xam ne moo ne laaj leen ku ragal a ñàkk xam na nga laaj loolu day mel ne kon ku jaayanteeg nit it dafa am loo ragal rek moo tax nga jaayanteeg moom waaye jaayanteeg moom moom ngir ànd ak moom noonu rek Cheikh Adama ak ñu jaayante woon ak sëñ eh, dara taxoon moo tax mu ne mi ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ne fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamuun sëriñ bi nga xam ne jaayante nga ak moom kon dangaa ñëw ngir laaj ko mooy dangaa ñëw doxale ko si diggante ak sa borom waaye dangaa bëgg it mu wan la yoon wi nga xamante nii mu def mel ne moom nga koy laaj yoon wi ñu jaar ba àgg ci yàlla lool nga koy laaj si moo tax cheikh sëñ bi dénk na Cheikh Adama dénk bu am solo dem na ba ci biir xasida ko am solo la baax na lool taalibe yi di ko xam bu baax a baax ndax suñ doyen ñun taalibe yëpp suñ magum taalibe moom la ko sëñ bi dénkoon kon ñun war nañ ko jàngat bu baax dem na rek ba ci biir naan ko yow Adama yow murit bi nga xam ne am murit murit mu yow mi su taalibe bi bu fekkee bëgg ngaa làq leeri suñ borom na nga sax ci jaamu yàlla mu nga xam ne moom moo la bind da ko jaamu kon sëñ bi lim daan digle jaamu yàlla moo ci jiitu woon ca bañ a bokk nag ci ñuy jaamu leneen surtout jigéen ñi ak yu mel noonu di dénkaane bu am solo boo xam ne sëñ bi dénkoon na ko Cheikh Adama Gueye kon daal loolu nag nañ ci jàngate ne sëñ bi moom moom moom message am naka jëkk daaw jug di ko jàngale ba sax ku jokk ci moom bala ngaa dem rek dana la jàngal wax la wan la yoon wi nga xam ne fi ngay teg say tànk ba mën a defar sa àdduna ji nga xam ne ci nga nekk waaye it ba mën a defar sa ëllëg ji nga xam ne moo tax nga topp ko dëgg-dëgg mën ca jaar ndax ñooñu ay kilifa la ñoon yu mag Euh, sëriñ Adama Guèye sëriñ Daamu Abdourahman ak ak ak ñoo ak ak jiil boobu sëñ ma sëñ Mandumbe ba ci Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ni mooy quarante yi moo moo leen moo leen mat li ñeen fukk ñooyu ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi jëkk jébbalu te jébbaloo Mbàkke Kajoor euh, Cheikh Adama Guèye noonu la ko tapé woon sëñ Massamba Diop Sam ni ki noonu noonu la ko tapé ci jamono ju yàgg jooja Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ni ki noonu ba tey na la ko tapé woon ak mag yeneen yu bare bari sëñ mbakki Bousso noonu la ko tapé woon sëriñ Cheikh Abdourahmane Lo noonu la ko toppee woon sëriñ Mandumbe ak mboolem mag ñëpp lim